suñu maam xaadimu rasul radiallahu anhu seqoon na kóllëre gu rëy bu mag ak sunu maam cheikh bu Mouhamed Kounta mi nga xam ne moo sañ ci Njaasaan loolu itam dem na yàlla di ko firndeel ci ay résultat sëñ Moustapha mu sëriñ euh, Touba radiallahu anhuma joxoon nañ ko soxna Fatou soxna Assou Kounta bu cheikh bu Mouhamed Kounta mu di ko denc xalifa bi nga xam ne aussi moo nelaw di alxaaji maam bu Mouhamed yal na yàlla yërëm ko bu baax te yërëm ñoom fa fekk moom itam jëloon na ci kër gi di soxna Ami Mbàkke ba tey ay jarbaatam ñu ngi fii tey ci biir Touba loolu nga xam ni nag ay jëflante la yoo xam ni yàlla daf ko santaani mag ñi doxoon ko boole woon njaboot gi mu nekk benn ëtt di benn pénc loolu moo ñu boole ak sëñ Bachir Abdou Khader boole ñu ak bépp doomu soxna ñun nag tey la yàlla dogal ñu mës fi ñëw ndax suñu kilifa rahmatullahi alayhi di Ahmed Bachir Kounta moo fi daan teew daan fi teewal famille bi yëpp mais tey li yàlla dogal ñoo fi teew teewal fi waxuñu rek famille Kounta yi mais jàpp naa ni bépp doomu soxna bu fi ñëw rek umma islamique bi yëpp nga fi teewal waaye askanu Sénégal aussi nga fi teewal donc ñu ngi am kontaan bu baax di amit yaakaar ci ni góor gu baax googu nga xam ni sëñ Abdou Khader Mbacke la nekkoon na boo xam ne élément bu amoon solo la ci diine ji ak ci réew ñetti jikko it xamoon nañ ko ci moom nekkoon na koo xam ni ku mu seqaloon ku mu seqaloon ab diggante ngeen jëm ci yàlla moo la ci man loolu wàll la woo xam ni nemmeeku woon nañ ko ci moom bu baax nekkoon na itam koo xam ni ku mënoon a xeex ak bakkan la moo gënoon a soxor ci bakkan ak ku mu mën a doon ci àddina ndax bakkan dafay mbartal nit di ko dugal ci kàmb waaye it nekkoon na koo xam ne oyofaayam ak modeste bi nga xam ne moom la yore ak xam boppam foo ko fekk mu toog kenn la ci biir ni ñi donc yooyu ñetti jikkoo ràññeeku woon na ci sëñ Abdou Khadre ba tax na ku ko gis mbaa nga dégg ko wala nga gis ku mu jur sa xel dina dem ci jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jikko jikko yi nga xam ne moom la lislaam digle